Référence TV, la chaîne de l'innovation. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لما نفعل والحمد لله مما فعل لنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على كل حال الحمد لله الذي لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم صلاته والسلام على أبي البشر سيدنا محمد وشفيع الأمة ومنذر الخلائق ومبشرا للمؤمنين وهدى ورحمة للمتقين وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والتمكين mbokki internet seen référence TV ñi ngi leen di nuyu di leen jaara ci émission yi ñuy def ak yéen chaque jeudi incha allah di leen ci jaajëfal di leen ci ndokkeel ci liggéey bi ak taxawaay bi ak ànd gi gi ngeen ànd ak ñun ci chaîne bi ak topp gi ngeen ñuy topp ci liggéey bi di nuyu boroom Euh, référence TV nga xam ne mooy Serigne Moussa Fall jàmbaaru daara jooju borom liggéey bi rëy boobu nga xam ne day liggéey te yàlla rek tax di nuyu mboolem euh, ñi nga xam ne ñooy suivre chaîne bi di ñaan yàlla tamit chaîne bi yal yàlla yëkkati ko ba mu doon ay télé yu mag ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Palestine euh, ñi ngi ñaanal suñu mbokk jullit yooyu ci jafe-jafe yu ñuy dund ak li euh, mu yàggee nga xam ne xeex la boo xam ne daanaka jiit na ñun suñu judd Yaasir Arafat li ñëpp xamoon nañ ko mu doon borom taxawaay gu rëy ci lislaam doon taxaw timit Palestine ba kaala googu nit ñuy kaaloo ci moom lañ ko miine woon mu daan tukki mos naa daanu ci avion génnul àdduna moom Yaasir Arafat boobu waaw moom ak Xaddafi ay ponkal lañ woon ci lislaam ponkal yoo xam ne ci li réew arab rawatina Palestine dama bëgg julli ñi xam ne maanaam dafa am lu mu leen bëgg a jàngal loo xam ne damaa bëgg mu leer ci seen bopp tey sëñ Fall yëg nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa keroog bi ko yàlla woowee mu war a seeti suñu boroom mu war koo jox lii ñuy def muy julli mu waroon a ànd ak Jibril ak alburaaq ñi ko doon tuddee Isra wal Mi'raj bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déparé Makka la wàcc ak Jibril foofu la jógee dem ci suñu borom maanaam julli ñi dama bëgg ñoo xam ne place booba symbole la ci lislaam maanaam pour mu doon yitti julli ñëpp place bii di Palestine yàlla da ko tudd ci alquran xam dañuy wax Quds mooy masjidul aqsa baad aoudu billahi min alsheytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يعلم ما يوحد من بما هو صلى الله عليه وسلم سانغ بوباه بوبو وور نيو سيسما من المسجد الحرام لجيغي مدينه المنور الى المسجد الاقصى ñëw ba ci place bi ñuy wax Palestine tey wàcc fa dégg déglu la ci yàlla tax ba rokk naa xawlahu li war Palestine yëpp maa ci def bari li nuriyahu min ayat naa ngir ngeen di si seet di gis samay kéemtaan man yàlla gis nga yonent yu bëri bi leen yàlla yónnee wàcc nañ ci suufu Palestine boobu boo ko détaillé day yaatu mu mu mu mu boo boo demee gëstu ko yonent yu bëri ci suufu Palestine boobu xam bani Israël ñoom ñoo bëgg jël Palestine mooy juif yi ñoom ñoo nekk di jàmmaarloo ak jullit ñi lu rek la te dañoo am benn euh, xalaat boo xam ne ñoom ci lañ toll fi mu toll nii dañoo bëgg indi zulmaanul kubra maanaam lëndëm bi gën a mag ci àdduna bi léegi nag ñoo xalaat ne daf fokk ñu campé ci benn dëkk jullit te Palestine moo gën a néew doole ci dëkk jullit tey bu jullit ñëpp seetaanee ba ñu récupérer Palestine bu ñu fi déparé màkk lañ jëf te màkk ñu ngi fay commencé def seen installation tey Màkka foo ko tuddaan rek alquran bi téere yàlla bi ngay tudd foo ko tuddaan sa xel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay dem foo tuddaan Màkka sa xel ci diine l'islam lay dem mais tey léegi foo tuddee màkk ñu wax la football foo ne jidda rek football nga ci njëkk a teg parce que ñi nga xam ne ñooy staru joueurs yu mag yëpp tonnerre yi jën nañ leen yóbbu leen foofa tey suñu xaalis bi ñuy ajee nga xam ne ñun julli ñu ñoo ko bokk ñoom waa Màkka ñuy waroon ñu see récompenser delloowaat ko ci jullit ñi tey lii am Palestine mu waroon doon seen problème waroon a doon problème jullit ñëpp mais tey seen xaalis bi yëpp ñu ngi koy jël di ko jox ay géer ay géer xam nga géer yëpp te li may wax ni dëgg la li may wax ni dëgg la kenn du ko dindi waaw boo seetaane seen télé ñoom la ñu wane tel màkk daawul ndamoo loolu diine xam-xam sharia la ko def nag mooy kenn ci ci bun salmaan moomu ñuy wax moom moo jël boroom xam-xam yi nga xam ne dañ doon wax dëgg ñu bari mu am prisonnier la ku nekk di waxal yàlla ak yonent bi mu teg la léegi nag day jël yenn ñenn nit ñi nga xam ne ñoo waroon taxaw lislaam ànd ak ñoom collaborer ñoom ñuy dooleel lii di ay caaxal ba ci ñi ngi bëgg màkk googu buñ déparé Palestine gii jël ko buñ déparé te màkk la ñuy jëm buñ ko sampee boo demee màkk la ko tiim mboolem signe yi nga xam ne mooy signe seytaane yu mag yi ñoo tiim màkk nit ñi duñ ko bàyyi xel yenn saa yi ñu wan la benn montor di nodd am ñaari xarnu yu ne ko xarnu yooyu ñuy gis montor bi def nii mooy signe yi ñuy def ci jàkka yeeg jumaa yi ci ëpp ni ni mu formé woo boo xoolee maanaam siiñu seytaane la moom mooy signe euh, franc-maçon yeeg les dédialisation yi nga xam ne ñoo ñu mag yi te léegi loolu lañu ñu orienté ci réew mi jàkk yu bari jullit ñi ñoo ñoo am mauvaise départ amuñ signe jullit ñi amuñu couleur amuñ hymne national bu leen boo xam ne moom la jullit ñëpp waroon maanaam ñun ñoom nekk ci mal organisation te loolu yàlla duñu ko defal ñun ñoo koy def léegi nag يونتي صلى الله عليه وسلم وحده من لم يهتم بامور المسلمين فليس منا كيب كو خامنا اب جولينغا ميرو جوليني سا ييتي نيكو سي بوكو سي مان كون جولين ييب لي خاو فلسطين دا فورا دون ورونا دون سين ييت موندو عرب ييب دون ورونا اند تاي بو خولي حماس رك نيو سي نيك دي خيخ اك نيوم ني مبولو مي ndaw waye tay bo xolé eh, jif yi ñi ngi dé waaye jullit ñi ñu ngi leen rey reyin yu métti ba démb maa ngi jot information yoo xam ne rey nañ ci juif yi jàpp nañ ay ponklu juif waaye nag ñi ngi bombardé ay ndaw ay xare dem nañ ba pala ba ndaw yi nga xam ne mooy ndaw Palestine yi léegi boo tuddee Mouhamed da ngay bind sa tur fii Mouhamed xam ne bu ñu la bombardé bu ñu xoolee sa loxo xam ne kii Mouhamed bu nangam la doomu diw dee la dañuy xëy di jël ay jullit comme ñun di leen jullee façon jullee yoo xam ne di leen denc façon denc yoo xam ne lu doy waar la te loolu lépp lu ko def mooy ñoom dañoo bëgg récupérer Palestine boole ko ci seen juif yi dañoo bëgg récupérer Palestine boole ko julli ñi taxaw ne fii symbole l'islam la dañoo war a yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko yàlla woowee fa jaar kon nag dañ ko war a protéger kon loolu dafa war a ñor jullit ñëpp ku mën a dem ku mënul dem nga toog ñaan ku mën a yónnee sa alal nga yónnee ko kooku boo ko mënul nga toog méttit lu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana woon ñett yi rek moo fi nekk da ngay jóg xeexi wala nga wax ñëpp dégg la wala nga méttitlu méttitlu nag mooy imaan bu gën a doyadi kon li ñuy wax rek mooy monde arab ñoo waroon a jóg jàppale Palestine julli ñu topp seen ginnaaw waaye monde arabe monde arabe ñoo njëkk a seetaan Palestine ki ci ëppoon solo nga xam ne mooy arabe saudi nga xam ne tey lépp yi lislaam daanaka foofu la déparé ñoom ñoo ci waroon a jiitu nit ñi topp seen ginnaaw waaye jaxasoo àdduna bu métti bi moo waral problème yi yëpp am te Palestine dafa am ñu leen di méttitlu ñu ngi koy méttilu di ko di ko méttilu jullit ñëpp waaye di ñaan yàlla tamit yal yàlla teggil leen ko mbiru góor jigéen mu ngi xewoon ci benn yónente bu ñuy wax yónente yàlla luut ay nitam daan def ba ay ba soxnaam daan jàppale nit ña ko doon def yónente yàlla luut waar leen ba sonn munu ci dara yàlla xam ne lii baaxul gis nga dama lay wax ñetti mbir yu am solo aadama bi ko yàlla bindee yàlla bindee aadama ci départ laa lay wax bi mu bëggee ko ko wéttali lu indi xawaa la indi xawaa wéttali ko luñ def am ay njaboot di am ay cheikh di am ay njaboot tey bu doon na góor la indi pilis ak pilis lay doon catastrophe mooy am pilis ak pilis baaxut moyenne ak moyen baaxut pilis ak pilis mooy góor ak góor boo ko defee ci courant mu explosé bu ko góor ak góor defee rek day dañuy tiital suñu borom day mel day exposition day am moo tax réew muñ koy defee réew mu day dellu ginnaaw bu dee jigéen ak jigéen mooy moyen ak moyen baaxut bu dee tamit beneen bi mooy genre ak yi ci aju ak lesbienne ak guim ak yooyu yëpp ñoom ñoo bokk benn kii gars yi nag dañu garaaw dañu indi benn mot boo xam ne dañ koy côté moo boobu ci la ñuy dugal li ñu bëgg a dugal lépp te loolu dafa am ay occidentaux yoo xam ne léegi du ñu coloniser Fall maanaam duñ coloniser sénégalais yëpp mais dañuy coloniser njiit yu jiite réew mi moo tax ñii jiite réew mi dañoo war a yor identité réew mi li réew mi waa réew mi di bañ ñoom ñu bañ ko réew yëpp laay wax ñi nga xam ne ñooy occidentaux yu am doole yi ñoom bu ñu coloniser léegi seen colonisation ci njiit yi lañ koy def te bi ci ëpp solo mooy ñoo yor a xaalis bi ñoo la ko mën a jox liñ lay jox lii ñu lay jox nag fii nga ñu koy defal ñun dañuy def lii da ñu ciy jàppale li ñuy promouvoir da ñu ciy jàppale moo tax réew mi moom laay tëjee bu ñu bëggee yii di ñu dal ñu bëgg cee génn fokk ñu jéem a moomal suñu bopp suñu suñu jëmm bopp yi ñu moomal ko suñu bopp jéem a jóg jëm jëm ci suñu yoonu bopp jéema liggéeyal suñu bopp ba yii di ñu dal di dootuñu dal li xew yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana fu ngeen fekk ku koy def ka koy def ak ki koy def ak ki leen a jàppale ñëpp bokk leen rey yàlla dafa wax ci alquran laa yuhibbu llahu aljahra bi suui min alqawli illa man zulim yàlla nee na bëgguma kuy feeñal lu bon bëgguma ku koy fësal ci wax bëgguma ko koy fësal ci image bugguma ku koy fësal ci dara lu dul ki nga xam ne dafa nam ma jóg pour tooñ ma man tooñ boppam sax laa yow tooñ boppam parce que yàlla kenn mënu koo tooñ parce que bu ëllëgee bu la waree defal teraanga fekk nga tooñ sa bopp du la ko defal teraanga dong la am mu ne képp ku ngeen fekk mu di ko def muy def plus ak plus rey leen képp ku ngeen fekk muy def moyen ak moyen rey leen képp koo xam ne dafa bàyyi plus ak moyen moo baax muy def leneen am na yeneen yu ci xew ci biir muy yàq société bi rey leen parce que dafa am loo xam ne boo koy def bëgg ko jaar la ci ay ndaw day yàq xelu xale yi beneen bi nag li am kawlax mooy nit la bu ñuy ne da ko doon def l'islam rey na ko bu yàgg kon atteem mooy reyoon nañ ko bu yàgg waroon nañ ko rey bu yàgg maam moom wartoon a exister bu dee l'islam mi ngi attewu ci réew mi maam rey na ko bu yàgg rey na ko bu yàgg maam yonent bi leen fu ngeen ko fekk rek bu xewee ci quartier waa quartier bi nañ ko weer bu ñu leen weeree ba pare ñu génn ko ci quartier bi jël ko rey ko ñii ne dañ koy raj mu raj mu mooy sànni ay xeer ba mu dee ñii ne dañ koy xadd mooy gëtal ñii ne dañ koy gis am pax sànni ko fa yooyu yëpp atte moom nañ ko rey rek rey moom dee moom dee rek la léegi nag seen atte ñoom ci kaw suuf li lislaam wax mooy nañ leen rey gis nga ci alquran yuntu yàlla lóot ay nitam bañ ko doon def ñu aye leen ko mu bañ yàlla dana ko jëlal gaal gi nga dem bi mu ñëwee xam ne nu mu leen alagee fa jacal naa aaliyaha saafilaha wa amtar naa xijaarata min sijjin dafa dafa wax malaaka yi dëkk ba yépp ñu taxaw ci coin yi yëkkati suuf si ba lay fare suuf fare suuf lay fare kaw fare kaw ñu dëpp ñu dëpp suuf si ba pare nag may leen porox ndol boo xam ne ay xeer lay taw bu sànnee xeer ki ka doon day dugg ci bopp bi génne ci suufam bam mu dee ginnaaw yàlla moo leen reyee noonu ñun nit ñi waruñ ci am benn problème mu na dee parce que yàlla moo ñu bëgg bëgg gën a bëggal jàmm parce que sëy bu ñaar ñi sëy njaboot moo tax léegi nag bu fi indee lenn loo xam ne day gàllankoor njaboot yàlla loolu la bañ moo tax mu ne képp koo xam ne dafay indi luy gàllankoor njaboot rey leen ko waaw dafa am loo xam ne dafa jéggi l'islam hmm. affaire identité la xam nga amoon na jamono ñu indi fi ay fiche nañ ku bëggul góor jigéen ku ko bëggul na signé ànd sàmm jikko yi man sañe signé woon laa bokk na bëgguma waa Kaolack sañe signé na bëgguñ ci lañ bokk waa Touba sañe signé na bëgguñ ci lañu bokk waa Tiwaawoon ci lañu bokk réew mi yëpp bañ am lu mat collecte nangami signature deux millions signature wala lu ko ëpp ñu yóbbu projet de loi boo xam ne li signature am mën naa dem ñu convoqué projet de loi buy criminaliser mbir mi ñu dem ñi nga xam ne li ma la waxoon sànq ñi ñu jiite dañoo waroon yor suñu identité li seen bëgg seen nit bëgg ñu ànd si ak ñoom ñu ne duñ ko nangu projet de loi boobu ñu raser ko ci place loolu ñu bañaloon askan wi moo tax askan wi fajal seen bopp loi dafa garaaw maam askan wi dañ leen lii neexuñu ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite askan wi askan wi teg leen foofu ci pencum ndaw réew mi ñu fay waxe waxe askan wi ñu ne ñoom li askan yu bëgg duñ ko def askan wi fajal seen bopp te fajal seen bopp ji moon naa ñàkk bu ñu defoon la askan yu bëgg waa ji bu buñ ko gisee fam ko doon defee bu ko kenn dooleelu toon balaa heure bi weer nañ ko li ñuy def rek mooy askan wi li ñu bëggoon mooy ku koy def ñu jàpp la tëj ñun sax waxuñu ñu rek ku koy def nañ la jàpp tëj ku koy def nañ la jàpp tëj réew mii nga xam ne Sénégal ñu ñëpp bokk nañ ne bëgguñ ko ku koy def nga génni Sénégal bokk diggaluñ la fo diggaluñ la nga def ko waaye ñu ne ah Sénégal de ñun nanguwuñ te am na ay réew Afrique yii yu ñu nekk suñ ginnaaw yu bari ñu manifester ñoom bokkuñ nanguwuñ léegi nag ginnaaw ñun sénégalais suñu identité nanguwul ñu ne suñu gouvernement ñun nanguwul ñoom ñu seetaan ñu xale yi ñooy génn fajal seen bopp te lislaam dafa jox cër nit waaye ndax war nañ koo suul war nañ koo suul waaw ginnaaw xas na ba dee li ci des yàlla lañ koy bàyyee nit moom bu xasee ba dee maam numéro téléphone boo supprimer numéro amatoo moom ci moom accès amatoo ci numéro bi accès mënatoo koo jot fi mu toll nii ginnaaw xas na yàlla lañ ko waroon a bàyyi waaye li mu wax bu ñu koy denc moog doomu njaalo ñooyem doomu njaalo dañ ne bu ñu koy jullee ki ko war a tudd bu mu doon nit ku am valeur bu ñëwee ci jàkka ji fañ ko war a tuddee quartier ba nañu xool koo xam ne moo fa gën a oyof yére koo xam ne bu ko tuddee ba pare du am benn valeur ci ci ci ci ci moom wala mu koy dem may benn valeur ñu ne ko kaay tudd doom ji nga xam ne bu ko tuddee ba pare rek ñu ne ah benn waaye dama ko tudd waaye imaam ratib waru koo tudd boroom xam-xam yu mag yi waruñ ko tudd ñëpp parce que dañuy bañ nga li ma la waxoon sànq béralal yàlla lu bon nga di ko siiwal beneen bi mooy moom bu ngay suul waruñ ko a suul ci armée lu jullit ñi parce que dañoo tooñ julli ñi tey jullit ñëpp lañ tooñ du kawlax rek dañuy wax kawlax déedéet jullit ñëpp lañ tooñ xam nañu waroon def dañ koy yóbbu ba àllu kaañ ñu gas am pax buñ koy suul tiwal bu ñu ko rafetal buñ ko maasalee bu ñu xam fu ñu ko maasalee loolu la wax nit koo xam ne day yàq ci kaw suuf buñ koy denc buñ ko utal benn simbal maanaam nit kuy yàq ci kaw suuf l'islam nee na buñ koy denc buñ ko utal benn symbole buñ ko dencee ba pare buñ ko rafet rafetalal nañ ko suul ak maasale nga xam ne buñ paree dañ koy fàtte nga xam ne dañ naan lii ku ko def boo fi jugee bu ëllëgee kenn du la jox benn valeur parce que liñ doon def amul valeur maanaam nii lañ war a jàngee maanaam boroom xam-xam yi nii lañ war a wax nit ñi boo demee ci ba risaala boo demee ci salaatu janaasa da koy da la koy leeralal maanaam nit kii buy dund lislaam atte bi mu atte ci kawam dañ ko ko war a àtte buñ ko ko attewul bu génnee àdduna lislaam danaan nañ ko taxaw taxaw gi nag mooy ñi am valeur buñ ko taxaw buñ koy taxaw tamit fañ koy denc bu mu doon bar bàmmeel boo xam ne bu am valeur la nañ ko yóbbu ci benn place boo xam ne buñ ko fa defee fàtte ko nga xam ne moom affaire am bu bare bu buñ ko wane ginaar ñu disparaître ñu fàtte loolu la ci lislaam wax te maa ngi wax jeunesse bi jeunesse bi lii nga xam ne ñoom ñoom moom lañ tuddee ay genre ak ñi ci aju bu ci kenn dugg bu ci kenn dugg parce que dégg naa ñi génn ci bitim réew léegi dugg ci gaale gi ci aju ñu ci ëpp bu ñu demee dañ leen koy jéemi signéloo bu la alal taxee bëgg nga signé ko bu la bëgg àdduna wala bëgg lix wala bëgg dem génn ci problème àdduna yi furutu géej bii nga bëgg tax nga bëgg cee naan boo ko siñee bu ëllëgee dañ la juróol ay conséquence te doo bu dañu ci bëgg génn mu la parce que nit lu mu xas ba signé moo ko d'accord moo d'accord li mu signé loolu nag luñ la ci teg yow yaa ko signé parce que ñoom niti tubaab loolu lañ xam li ñu signé kon moo tax fooy taxaw ñuy si ñu lay signaloo ne la dafa am om am femme am genre yow mi femme tànnal femme yow mi om tànnal om genre bàyyi leen ko fa baaxul waaw genre ak i mbokkam benn baaxu ci parce que les ñoo ñu ko ñoo ñu ko forcé proposé ñu ko bëgg see teg ay ay ay gàllankoor ak ay xaalis yoo xam ne xaalis yi benn baaxu ci xaalis yooyu ñu koy defee sax benn baaxu ci te ñoom ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo ci nekk ñooy ñi nekk ci ginnaaw àdduna bi te yàlla daf leen a dox luy problème àdduna yëpp faal ma wax la ko xam la lu tax àdduna bi am problème mooy julli ñi dañoo waroon a am seen force góor góorgóorlu ba jiite àddina bi Saddam Hussein waxoon ne ittafaqul arab ala annahum lam yattafiq lam yattafiqu maanaam arab yi monde arab ak jullit ñi xam nga ñoo ci ëpp mu ne ñoom ñoom dëppoo nañ si ñoom mënuñoo ànd Saddam Hussein moo waxoon loolu loolu mooy problème bi léegi nag ñu seetaan ba ñi nga xam ne ay mushrik lañ ay juif lañ ay bandi lañ jiite àdduna bi duñ problème. Référence TV, la chaîne de l'innovation.